mbooleem boy kàngami xel yi seeni xel di xalam njariñ xamees nañu ne njariñ laa ngi fii ci Gninguène TV gii ju xikam la guy ball mbalem fànni xam-xam yi ngir yaatal xam-xam ci kaddu gu leer xam-xam bu sell def leen Gninguène TV muy seen moomeel abonné leen ci seen bi ngir di jot lépp lu ngeen yittewoo bés cloche notification bi ngir di jot sa tànneef ci saa yu sottee Gninguène TV service commercial 77 814 19 25 ba tey 76 276 84 84 ñi ngeen TV géeju xikam la guy ba ma xamal lu ma mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam sant ka santaat ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dellu di ñaanal saaxidul fadila Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mamadou Bassir ñaan suñ borom sàmm ko aar ba lépp li mu yéene di ko naal suñ borom dafa ko ci lu kaw njortam waaye di ko ñaanal sëñ Amdi Modou Mbenda Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina moom it suñ borom sàmm ko aar ko kattanal ko ba ay yéeneem ak ay mbébétam suñ borom àggale ko ko. waaye di nuyoo ko ziar bu baax mbooleem xalifa sénéro boo xam ne nag daa toog toogaayu waajuram mbaa mu toog toogaayu maamam maa ngi koy ñaanal ndondaloolu yàlla na ko sa borom sàmmal te laqal ko ko fu yàq jubluwut ci barakati Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di nuyu kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi ak kenn ku ci nekk ci la nga aadawoo ak ña nga yëlëf ci aada ja maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la a jàmm di leen nuyoo nag fi leen baaxoo nuyoo ci seen seen YouTube bi nga xam ni moo di Gninguène TV ngeen ànd kook ci kàddu gi muy àddu ngeen di teewlu Moustapha Bassirou Gningue di nuyu mbooleem abonné yi ak ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan vidéo yi te di ko partagé di waxit nañu gën di abonné tey seetaan vidéo yi te di ko partage di ko jokk jokkalante ndax lu baax des ko yaatal ba ku ne man caa jëriñu mbokk yi tey nag ñu waxtaanee ñaari ponk lu jëm ci wàllu bët ki am jafe-jafey bët lu koy saafara waaye joxewaat leen tamit beneen ponk bi tamit jigéen ji nga xam ne day sange maanaam day faral di xëpp deret lu bari te li muy arrêté bariwul ci moom te mu bëgg taqali ko ak moom ci lu gaaw incha allah des na ci ñëw. ci seen chaîne bu mag bii di Gninguène TV ak Moustapha Bassirou Gningue muy àddu ngeen di teewlu kon su ko defee laata loolu dañ leen di présenté yenn ñett ci suñuy produit yi nga xam ni moom lañu am ngir jaam yàlla yi man cee faj seen i aajo lu mel ni cuuraay bi dana dindi mboolem xeeti sayaatin ak mbarab ak àndandoo ak def-def ci nit ak umute moom cuuraay bi kon ci gàttal cuuraay bi moom joxewul xaalis joxewul bayra waaye dana la may kaaraange waaye tamit lépp lu mu fekk sa yaram ci taq-taq mbaalu tëju wàllu umute wàllu cat wàllu def-def dina ko daal di dindi incha allahu rabbi waaye nag jigéen bu ëmb moom du ko suuroo xale bu am cinq ans jëm suufit du ko suuroo ba tey dana ñëw ci ndox mi moom it macha allah day raxas mboolem taq-taq nit ki umute cat ak def-def xeet yooyu yëpp da ko daal dindi ci doomu aadama bi nga xam ne da ko amee incha allah rabbi waaye nag moom it kenn du ca naan waaye dañ ciy fay bu dee góor da ciy fay set xali sawara bu dee jigéen mu fay ci ñetti xali sawara trois xali sawara moom it sangoo ko trois trois jours bu dee góor euh, cinq jours la ndox mi bépp liggéey bu nekk ci kër boo compee tuuti xorom def ko ci ba mu seey nga wis ko mboolem lu fa safoon dana sàppi yooyu suñu produit yu leen di présenté la en temps cuuraay bi tamit kër goo ko taal lépp lu fa bon lépp lu bon lu fa nekk rek da koy toj comme par exemple gi bu amoon liggéey ba mënuñoo juboo wala sa bërëbu liggéeykaay ñu liggéey la ba saa demee mënutoo faa nekk wala tey ñu liggéey la liggéey boo xam ne kër gi ngay taxaw mënutoo faa teg tànk boo ko fa taalee lépp lu nekk ci moom da deñ en tant nag ki ko suuroo moom tarkala moom lépp lu nekk ci moom da deñ ñu présenté leen seen beneen saabu boo xam ne saabu bayre la saabu bayre bu am solo boo xam ne des koy sangoo wala nga koy sëlmoo am na tamit diw bayre moom it ñoom itamit ñu leen koy présenté ñu waa ñi ngeen TV incha allah rabbi suñu chaîne bu mag boobu di leen présenté produit yooyu doonu euh, beneen bi nga xam ne mooy ndoxu kattan bi ñuy siiwoo trois fois par jour moom lañ ko siiroo siiwoo kon ñi nga xam dañoo néew kattan ca lal ba ñoom it indi na la fii ndoxu kattan bu ñuy siwoo bu mucc ayib ndoxu kàttan bu doy waar moom it macha allah ci képp koo xam ni saa borom dafa dogal ci yow nga am jafe-jafe. wala suñ borom dafa dogal ci yow nga am jafe-jafey kattanug sëy am nañ ci euh, ndoxu siiw bu mucc ayib ngeen mën ñëw woon nag ci numéro téléphonique commercialu ñi ngeen TV bi defal 77 743 50 43 77 743 50 43 wala nga def 77 euh, 777 euh, wala nga def 77 maa ngi jégalu 532 31 04 77 532 31 04 moom it ku ca woote incha allah ñaari numéro yooyu di nga mën a daal di jokk jokkalanteeg ndongale Moustapha Bassirou Gningue mu man laa ci yoon ba la nga bëgg ci cuuraay yi ak foo mën a nekk ci moom la suñu borom gi nga mën koo am kon jaajëfal nañ leen bu baax a baax loolu produit yi nga xam la euh, seen seen ñi ngeen TV bi moo leen koy présenté waaye nag man mii di wax ak yéen maa ko liggéey ci sama loxo bopp kon ñu ñëw ci ki nga xam ni ñu indi ci euh, Maodo yow ma biñ ba ma waxtaanee tey nit ki nga xam ni saa borom dafa dogal ci moom mu am jafe-jafey bët day bind faatixatu kitaab fukki yoon ak ñaar douze fois lay bind faatixatu kitaab alhamdulilahi rabil alamin ba ca wala daali nëgg mu def ko ndox di ko sëlmoo fukki fan ak ñaar loolu yi baax na loolu mbokk yi ci ki nga xam ni dafa am jafe-jafey bët yoo koy metti na bind faatixatu kitaab douze fois muy fukk ak ñaar def ko saafara di ko xalsan di sëlmoo fukki fan ak ñaar bu jeexee bu ko neexee mu lu ñetti fan toll leen tiwaat ko incha allah incha allah saa borom mën na ko dimbali bët yooyu dina raxasu ba set ci bu doon dafa gis-gis bi dafa dafa ndëm waaye ki nga xam ne saa borom daa dogal ci moom amagul jafe-jafey bët yu metti amagu ko laa bëgg a wax amagul jafe-jafey bët yu metti kon way leen di abonné di teg seen gët ci seen bu mag bi di Gninguène TV euh, moomeelu askan bi abonné leen bës ko su notification bi tey yaatal video yi di ko partager tey like tey boole di commentaire seeni bëgg-bëgg ci vidéo yi ñu mën di ci ñëw di ci waxtaan ak yéen ki nga xam ne nag daa am mu gudd jafe-jafe bët ay bëtam set na macha allah amul benn jafe-jafe waaye day bañ a am jafe-jafe bët mbokk yi day def saabu bu jullee waxtu yu juróom ba sëlmal mu tàllal xolu loxo ndeyjooram bi jàkkaarloog moom jàng ci ñetti inaa nàkkal kawsara bam jeex tàkk tifli ko ci raay ko ci xar kanamam kooku ba ba muy génn àddina du am jafe-jafe bët ki ko amagul laa wax xam nga bële ki ko am la faatixa du kitaab bi waaye kawsara bi ki ko amagul moo ko moom kon ki nga xam ni amagul jafe-jafe bët ay bëtam set na leer na macha allah moo xam muy yëngu ci wàllu ecran wala muy faral di xool miir bu weex et cetera di bañ am jafe-jafe bët nay def saa bu tee ba sëlmal rek tàllal loxo ndeyjooram jàkkaarloog xar loxo ndeyjooram bi loxo ndeyjooram bi xoolu loxo bi jàng ci ñetti inaa axte naakal kawsara tefli ko ci raay ko ci xar kanamam kooki ba ba muy sàngoo suuf du am jafe-jafe bët incha allahu rabbi kon bu ko defee ñu indi beneen euh, ponk bi ci jigéen biy sange xam nga léeg-léeg jigéen ñi ndeysaan tarkal la rab nag da koy def nit léeg-léeg nit gis mbaax mu war a arrêté te du arrêté wala léeg-léeg jigéen ñi gis mbaax wala ñu gént am deret gént gis deret xëy gis règle wala ñetti fan wala ñu ëmb sax ndeysaan gént di sëy wala ñu gént gis deret teg ñett fan ëmb ba tuur loolu rab da ko def nit waaye kon jël leen ci cuuraay bi wala ci ndox mi incha allah moom it macha allah ci lu mel noonu fàtte woon naa ko tamit aussi waaye xam naa dañeel émission bu may jeexal dinaa ko dugalaale foofu noonu incha allah deuxièmement bi moo nekk noonu euh, jigéen biy sange di xëcc deret di xëpp deret deret yi di ko sonal te du tëw a day wut xobu tàndarma wala boog caru tàndarma bu ma nee xob nañ jàpp nañ jàpp ni kon dagg bu ndaw boobu la xob bi waaye caru tàndarma ngi wut bànqaasu tàndarma kon ci gàttal mbokk mi su la suñ borom mayee nga am bànqaasu cànd tàndarma yow miy xëpp dara di sanga jigéen teg ko rek amul saalaali amul waalaali amal yéene ji rek innama ahmalu bi niyyati nga jéggi ko dem jéggi ko dëpp jéggi ko demaat jéggi ko dëpp ba mat ñetti yoon nga toog lu mat fukki minute nga xool da nga gis ne deret ja doon tour dana arrêté ci kàttanu yàlla su borom lii moom dañ koo jar bu miraaran miraaran ay yoon yoon ñaaree ku ñuy woo diñuy di ñuy wax jafe-jafe deret dañ naan la xoolal fa la gën a jege ci keru tàndarma rek nga fexe ba am ko teg ko jéggi ko trois fois dem dikk jéggi dem jéggi départ jéggi dem jéggi départ ba man ñetti yoon danga gis ni automatiquement rek suñ borom dalee daal di arrêté sange googu nga xam ne moom la doon def diiru fukki minute kon ñu bàyyi xel bu baax seen bu mag bii di Gninguène TV ah ak euh, Moustapha ñu ngi muy àddu ngeen ñu teewlu kon ñu mu leen présenté woon cuuraay bi ak ndox bi ak li nga xam ni moo di euh, saabu bayre bi ak diwu bayre bi ak ndoxu kattan bi nga xam ni góor ñi néew kattan ci ba mën nañ koy jëfandikoo trois fois lañ koy siwoo par par jour ma fàttali leen galan bi nga xam ni mooy galanu kaani bi galanu kaani bi nag moom galan bu mucc ayib la ci wàllu kaaraange lay dox total galan bi as ngalan su ndaw lay doon ku ne mën nga koo takk sa digg du la déranger te du la yàqal waaye képp koo xam ne takk nga ko ci sa digg lépp lu la waaye jéemal di nga ko xam te képp ku la liggéey dana ñàkk bakkanam képp ku la fexeel rek ci lu bon dana dana del ci kawam ku la yéene dee day dee ku la yéene day torox kon moo tax man la ku la yéene safaan ku la fexeel dana ñàkk bakkanam ndax li la waaye yéene mooy dépati kawam kooku mooy galanu kaane bi tey képp ku la def def def bu bon wala mu lay fexeel kooku moom fu mu mën a jaar dana bënn ay bëtam ñëw ci yow ci kàttanu yàlla suñu borom dinaa def émission spéciale sax comme ça galan bi mais dama koy ñambaasaale ci biir Maw Dox Yow ma bi ma doon defal tey euh, gaa ñi nga xam ne ñoo abonné ci compte bi ak ñi nga xam ne abonné guñ te war a abonné encore incha allah ci seen bu mag bi di ñi ngeen TV kon bi nga noonu bu ko defee ngeen baa ko xel bu baax a baax galanu kaani beeg ak produit yooyu nga xam ne moo di cuuraay bi di ni séatine ak rab ak def-def ak umut ak yaram ak wàllu cat ak toj liggéey ci nit ki ak toj liggéey ci kër ak ndox mi

cent 276 84 84 76 276 84 84 kon mi ngi noonu woy leen di teg seen i gët di dégg seen nopp ci seen bu mag bi di ñi ngeen TV ak ñi ngeen TV kumpa day tàggoog yéen te ngeen abonné nag bés koloosu notification bi ngir bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ngeen mën ko am temps réel man koo seetaan mën koo chiffre tey bu leen di fàtte. vidéo bu mu mën a doon am lu leen ci lënt dina leen bind ci suuf commentaire yi incha allah des na leen ko yaatal wala ponk bu ngeen bëgg ñu waxtaanee ko rek ci fànni xam-xam ci fànn lasraar bu ngeen ko dugalee foofu incha allah commentaire yi des na ci ñëw benn bis def ci maw donx yow ma waxtaan ci waxtaan bu mujj ay ngir jaral ngeen ñu ko yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen bu mag bi di Ndinguène TV kon jàngeen ngeen jëf yàlla nañu saa boroom defal dégg ak topp ci barakati Cheikhul Khadim taxaw lu foofu nag ñaan gën ñun suñu borom defal ñu ko